Euh, laataa nag ñuy daanu si ci euh, li nga xamante ni moom la ñu gën a mën a xaar ci taskatu xabaar yi jeextal suñu émission bëgg naa nga atu ci euh, sorti bu yeewi kan mm-hmm. bi mi nga xamante ni gis nañ ko dikki jeudi seen conférence de presse bi nga xam ne am nañ ko gis nañ kàddu yi nga xamante Ousmane Sonko yëkkati na ko ak ñi mu ci àndal Déthié Fall ak kii di Khalifa Ababacar Sall mm-hmm. mais laataa loolu kii di Sonko bu mu yëkkatee kàddu dafa annoncé pétition bi nga xamante ni ñu ngi ko fa yéene signé objectif bi nag moo di yóbbu président Macky Sall ci kanamu yoon waaw mais loolu c'est simplement pour faire du bruit rek mais Ousmane Sonko moo la gën a xam ne loolu du mujj fenn. lu tax ah mais moom xam na ko. jóob président Macky Sall ci kaw kanam yow. Ah, du mujj fenn yow yow yow maanaam ni ñu tëggee ni ñu ràbbee suñu loi yeeg. Mm. suñu charte yeeg suñu arsenal juridique yeeg. yow yaakaar nga ñu gis ci un président de la bu ñu xëy xëy destitué su la base de pétition dama lay laaj rek. war naa war a mën a ne. non non non non warul war a mën a ne. xam na ni sax loolu lu mujj fenn moom xam na ko sax. y une campagne à l'époque en 2008. Mm. mooy juste bi ñu génnee Cheikh Tidiane Gadio ci gouvernement bi. Mm. une internationalisation du tout dégage Abdoulaye Wade. Mm. est-ce que daa mujj fen mais kon ñoom sachant que ni quand même du mujj fenn. lan moo tax yow lan nga jàppee ban analyse kon nga am euh, boo xamante ni moo war a nekk derrière le fait est que ñu annoncé loolu te ñoom xam nañ ni du mujj fenn. non il faut que ñu occuper espace bi politique da ngay occuper espace bi yow tamit. kon stratégie de com rek la. stratégie de communication. Hmm. tu as compris. Hmm. il faut nga occuper espace booy def politique lu ko may dañ lay fàtte. Hmm. yow fexeel c'est-à-dire politique xam nga mooy lan dafa am benn koo xamante ne bii wax dëgg neex yàlla aujourd'hui c'est une réalité moom nekku fi woon. Mm-hmm. dafa jàngi bi mu ñibbisee mu toog ni di waxtaan moom. mu ne ko man damaa bëgg a nekk maire telle localité. Mm-hmm. mais kooku dafa am double nationalité. tu comprends bi mu ko waxee ko kooku ne ko mais loolu mënul nekk mu ne ko man daal dinaa fexe dinaa wax ma ma bokk. Mm-hmm. dinaa wax ba bokk boobu ñoom ñëpp dañ koy jëfandikoo en un moment. de tous les jours. mais dafay am moment yoo xamante ne mais c'est-à-dire c'est juste créer un bruit du scandale mais après xam nañ ne loolu mënul nekk sax. Mm. mais nag président li mu def tamit du lu ndaw loolu nag mérité woon na vraiment nag. waaw euh, loolu moom parce que nag recevoir ku mel ni Djibril euh, sa palais. non euh, xam nga alors que ni am na yeneen audience yu gën am solo peut-être yu toog xaar la benn affaire. Mhm. man boobu audience bu doon président daf may tàggu dama ko daan du ko def mais aussi man li ma gëm personnellement. Mhm. photo yi génn. Mhm. loolu neexul président. mais jàpp nga ni président ak ñu mu toll ci réew mi ay photo dina génn ci loo xamante ni moom yëgu ko ah, est-ce que tamit amul stratégie bu nekkoon derrière xam nga Djibril Ngom c'est un illustre ah, am non c'est-à-dire bu am président la président la mais aussi est-ce que président defu ko par stratégie c'est-à-dire mooy li ma wax léegi waaw def loo xamante ne bii day tax ci biir Yewwi Askan Wi kenn dootul wóolu kenn voilà loolu tam lu mën a nekk mm-hmm. nga xam ne day créer benn genre climat de sauve-qui-peut mm-hmm. kenn dootu parce que imagine lu toll ni ay liste mm-hmm. déjà balaa ngay identifier une personne banaan ko fi mu ne nii yaay suñu mandataire rek dana fekk mu daj coono moom boo xam ne yow amal nga ko reconnaissance amal nga ko njukkal yaa ngi dégg ñuy dem di dem di dem di dem ba mu dajale lépp moom jël yóbbu ko ci béréb man dama jàpp ne est-ce que nekkuloon stratégie boo xamante ne bii. Mhm. après suite bi ci am. peut-être mhm. moom mu ëpp leen loxo. Mhm. man loolu laa jàpp. parce que le gars c'est un russe inconnu kenn xamu ko. inconnu du bataillon xamu ko ndaxte euh, réew mi jox nañ tristement célèbre. parce que man aussi man li ma ja gëm jàpp ko mooy. kooku foofu waruloon sax nekk. moom tamit annoncé nañ benn kenn jébal nañ seen plainte ci kaw jébali nga moo xanaa dina porte ses fruits pour dire vrai. Mhm. ah contre Djibril Ngom. kooku dañ ko yéex a def sax. Djibril Ngom kay <laughs> heure bi waroon ah, def peut-être tamit ñoom jéem a négocier à la non heure bii waroon na fekk ñu instruire plainte am bu yàgg sax. loolu wan man waaye askan wi man li ñu toog boobu ba tey defuñu ko. gis nga ni daal dañ koo bàyyi dañ ko may temps. daal loolu man daf ma jaaxal man loolu man daf ma jaaxal. Mhm. parfois aussi man j'ai l'impression que en fait euh, ces gens là aussi tamit li ñu war a def dëggantaan duñ ko def. maanaam ñoom xam naa dañ ko yërëmoon banaliser woon ko gis président daal di koy recevoir ñoom it seen xol daal di ci euh, bu yàgg yàgg lañ ko waroon porter plainte bu jàgg sax hmm. heure bi waroon na fekk plainte am ñu instruire ko ba mu am suite mhm. pénale man loolu laa jàpp mais lan nga analyser quand même euh, mbir bi pour yow euh, lan la moo waral président wax ko recevoir sa analyse personnelle non wax naa la man ñaari analyse laa laa ci am première analyse bi mooy est-ce que defu ko pour créer benn genre climat de de de de de de non confiance. amoo écho ci la war a tukkee ca boobu gisee comme. waaw mais euh, yoo xamante ne saa même boo ko amee tamit saa yi doo ko mën a génne. parce que Mansour yow sa loxo ngi fépp. non doo da nga da nga doon mën a. génne am nga am nga am nga am nga am nga am nga xibaar ci lépp macha allah man loolu am naa ci lu ma woor no xoolal dafa am loo xamante ne tey jii même boo ko xamee. xam nga président lu mu war a wax ak Jibril Ngom. kan Jibril Ngom. ah mais moom li président wax moom moom loolu bind na ko Facebook di. non man <laughs> la tukkee ca pale ga laa moom daal moom li mu wax mooy li ñëpp liir léegi weddi na xaalis bi. 10 mu yi ñu wax ne moom lañ ko defal ci enveloppe ba. ah moom daal mhm. ngi dégg mais loolu mën naa ne ay détails la yu consistant comme ay détails la yoo ne aussi mhm. bon mu ngi noonu quoi man li ma jàpp mooy le gars c'est un illustre inconnu. Mhm. analyse bi ma ci am mooy président xam naa daf koo def. Mm. pour créer benn genre climat de suspicion au niveau de Yewwi Askan Wi euh, nga xamante ne mm-hmm. euh, kenn ku nekk sax mën nga moytu sa morom mm-hmm. parce que imaginel nag wax dëgg na yàlla foofu noonu mm-hmm. match dafa waroon am de match électoral dëgg moo fa waroon am uh-huh. ah bien sûr parce que aussi tamit Yewwi Askan Wi coalition mag la de bu mag la kay Yewwi Askan Wi coalition man la mais li ma comprendre xam naa ni coalition du nekk coalition politique coalition électorale lay doon. Mhm. da sa ci sa kër. d' accord mais Mansour présence su euh, union euh, président Macky Sall euh, ci union africaine ñu gis ne kii di Ousmane Sonko sax ci biir conférence de presse am bi mu ngi koy xaw a mokki tuuti ni daal président balaa ngay dem di jafe-jafe yeneen war nga gën a sóobu sa jafe-jafe réew. Mhm. parce que tout récemment rek gis nañ sax ay affrontement yu amoon ni ki barki démb bu foofee ci université. Mhm. ba am sax benn ndaw bu ci ñàkk bakkanam ñi ngi wax nag affrontement yi ndaxam loolu moo waral mu ñàkk kanam am déet gis nañu euh, kenn ku bokk ci famille def na euh, benn euh, interview hmm. ni ku jigéen ki dafa yàggoon feebar hmm. maintenant nag reste à prouver ndax feebaram boobu moo ko yóbbu wala ndax lu tukkee la ci manifestation mais naka nga gisee position président Macky Sall ci ci Union africaine te ñu bëri jàpp ni fii la waroon njëkkee tànk yooyu mu ci dox non xam nga président bi ñu ko falee ba tey hmm. moom li mu mën baax na baaxul ngi def li mu mën donte nag on souhaiterait vraiment mu def mieux que ça. Mm. par rapport à la présidence de l'Union africaine. waa léegi man damay laajte ba xam ñi nga xamante ne bii jot nañu yor la président pendant un an. Mm. ñooñu seen dëkk yi amul problème. Ah, problème kay am na fépp nag. Ah, mu ngi noonu peut-être on aurait pu dire non président warul wax ne damay indi damay restaurer le poste de premier ministre. Mm. parce que war a dem CEDEAO. man boobu explication moo ma convaincre. Mm-hmm. reste a eux ñoom maintenant de donner une autre explication. Mm. mais c' est pas parce que da nga war a sa sa dëgg dafa am problème rek waroo dem CEDEAO non. Mm. aujourd'hui c' est de des grands ensembles. Mm-hmm. gis nga Gambie Yaya Jammeh fii la nekkoon yaa ngi dégg di def lu ko neex ci dëkk bi ñu dem élection mu perte élection yi. Mm. woo Adama Barrow demaat ba ci biir bëgg a dellu gannaaw te su ma waxee Gambie. damay daf may permettre ma embrayer sur la crise casamançaise mais crise casamançaise Sénégal mënu ko lijjanti fii ak Yaya Jammeh mu ngi nekk foofu di am position bi mu am mais lan moo tax Yaya Jammeh gannaaw yàlla ñu jëlee ko foofu mais résolution bi ñu jëlee CEDEAO la te loolu nekk lu ndaw. Hmm. <laughs> donc encore une fois taxaw fii ne non dafa war a toog fii non non man je ne suis pas d'accord. kon daal loolu koy saluer. non. loolu xo présidence bii tournée la. Mm. présidence la boo xamante ne chaque année am na koo xamante ne moom moo war a jël doxal. Mm. comprendre nga. Mm-hmm. aujourd'hui c'est leur des grands ensembles ça l'a toujours été d'ailleurs. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. li nga xamante ne man mooy li ma jàpp mooy ñoom waroon nañu mën a joxe une autre explication que on doit restaurer le poste de premier ministre le président doit effectuer cent voyages dafay am yeneen question panafricaine yu mu a gérer et cetera et cetera et cetera. effectivement effectivement balaa nga naan naam da nga fay nekk. da nga fay nekk jii président bu nekkul woon le chef de l' état du Sénégal. Mm. du woon yóotu lële. wala waa CEDEAO duñ ko woon xalaat di ko jox. Mm-hmm. encore une fois waaw suñu patrimoine bi ñu inscrire. non mais foofu ci UNESCO ceebu jën gi Mansour. non xam nga man loolu tamit ñu wax ci de. non man loolu wax dëgg neex yàlla am naa ci beneen lecture. ban muy ban. xam nga man lecture laa ci am. Mm. man doon na ma neex tey ñu ne. sur la base de d' effort. tey fexe nañu ba Sénégal am autosuffisance en riz nga xamante ne li ñuy lekk ci ceeb tam mu daj dëkk bi nag maanaam Sénégal en réalité. mais loolee mën a gu sotti léegi parce que gis nañu ba ñu euh, annoncé li nga xamante ni moom moo di. yokkute yokkute yokkute ci denrée de première nécessité yi. Mm. gis nañu euh, ñi nga xamante ne di experts yi xamale nañu ni euh, Sénégal fii lekk at bu ñu nekk ak bu ñu jëm yëpp mënuñoo xaaragum li nga xamante ni moom muy mu autosuffisant en riz quand même jël ko patrimonaliser ko à travers l'UNESCO mm. on ne peut pas ne pas hmm. mais man pour man le défi véritable défi. xam nga lan la ceebu jën national. waaw xam nga lan moo war a nekk défi bi ñu fexe ba saa bu di jotee wala une heure jotee nit ñi seen kër yi moo xam am nañ lu bari moo xam am nañ lu néew ñu am ay boolu ceeb ci seen kër yi mais yàlla dimbali ma sama wàllu liggéey. Hmm. man wër naa Sénégal soxna si am na ñoo xamante ne wër na yàlla mburu sax mënuñu ko liggéey. dëgg la dëgg réew mi dafa métti. donc aujourd'hui ñu nekk fii tekk fii kenn ku nekk naan non euh, UNESCO